élection locale 2022 ci département de Mbacké l'association des professionnels de la presse en ligne du Baol indi initiative bu am solo fa seeni ci ànd ak mboolem candidat toutes les coalitions toutes les listes mu doon municipal wala départemental jàpp leen seeni ay plateau ay émissions ay directes ci concept bi ñu duppee tànneefu askan wi mbokk mën nga gaaw saisir bi les opportunités moo lay may visibilité di nga ci ànd ak ñun ak ay moyen techniques yu xarala ngay am en sur plus de vingt sites internet mais également après le direct di nga am intégralité émission bi bu ngeen amatee ay caravane ngeen am ay proximité ay porte à porte ngeen def déclaration saisissez cette opportunité ndaxte moo leen di yembal fa ngeen bëgg seen message àgg fa mu àgg fa si li mu gën gaaw a gaaw ànd si ak ay professionnels si mbooleem wàll lépp lu ngeen ittewooti si wàllu wu ni mel couverture médiatique appel ba jóg taxaw tem ngir ànd seeg yéen bu ngeen si bëggee ay renseignements mën ngeen contacter numéro yii di défilé ak sunu service commercial local 2022 si département de Mbacké appel ba da ba jeex tàkk ngir gindi askan wi mais également gunge candidat yi.